fii nekkati ay naan ay neddo ko bandum yeeg yooyu ñun dañoo dox si yooyu dox ñu si yooyu de comme cent pour cent seen woote woote am solo yàgg dañoo woote woote yu am doole mais bu démb bi euh, mu xawee xam nga ñoom ñoom dañuy bëgg ay nit boo xam ne danga fii nekkati ay naan ay neddo ko bandum yeeg yooyu ñun dañoo dox si yooyu dox ñu si yooyu de comme kaalaw pulaar cent pour cent kalo pulaar to nene to baaba to kaw to miña to tout de tous les côtés nag de tous les côtés ngara lay wax Vélingara levez-vous tout le département levez-vous votez tous Sonko Diomaye et massivement votez Sonko Diomaye son Sonko Diomaye son Sonko Diomaye kese parce que ñëpp gis ñëpp xam ñëpp seede ni la région de Kolda fait partie des régions les plus oubliées dans l'histoire politique du Sénégal wala gouvernance Sénégal Kolda moom lañu ñu gën a mën a fàtte ñu teg ko ci ginnaaw boo jëlee cinquante ministres de Koldoa nga fal leen te du ñu def dara foofu noonu ban njëriñ la am ban njëriñ lan mooy njëriñam c'est juste parce que oui fal nañu sama sama ku bokk ku bokk ak man région wuy voilà la suis content c'est pas ça on n'a pas besoin de sax benn nit buy liggéey moo ñu gënal fukki junni yoon ko cinquante personnes yoo xam ne lekk rek lañu fa nekkee du ñu liggéey dara on n'a pas besoin de ça ñun dañoo bëgg ay nit ñoo xam ne dañuy liggéey benn nit kot mu am njëriñ ñu la muy njëriñ bi maye 3000 mille de déedéet tu feras le tout pour que Sénégal ñu créer dans les régions des entreprises yoo xam ne dafay créer l'emploi loolu mooy dëgg bala ngaa jël junni di may nit junni bala ngaa jël junni may nit benn jour mais may ko foo xam ne mën na faa amee mille francs tous les mois au moins mu mën a am foo xam ne moom mooy amal ñàkk boppam mu mën a am loo xam ne mooy ñàkk boppam lay doon xanaa c'est ce qui loolu mooy li gën di mais ngeen nekk fii di xaaraan di xaaraan di xaaraan di xaar ku leen di may 1000 francs ku leen di jox t ku leen di jox kasket jamono jooju weesu nañ ko nag weesu nañ ko de ku ci des ku nekk yaa ngi nelaw bay xandoor nag te gëntoo parce que bu boo doon gis lu ndaw saa nga gënt mais gisoo dara moo tax gëntoo yaa ngi nelaw bay xandoor ba pare gëntoo c'est ça la loolu jeex na jeex na takk ma ne yéen waa Kolda yéen ñëpp ba Sédhiou Tamba Fuuta ci boppam ba Kidira yéen ñëpp Kédougou voté Sonko Jomaay da bëgg seen côté yooyu noonu mu tekki voté Sonko Jomaay train express régional mu ngi nii TER bi li ñuy naan teer TER TER lan lay tekki train express régional kan moo gis TER bi fu mu dem Mbuur waxuma la sax ci région yi kan moo ko gis xanaa kay lii rek exemple la tamit kan moo ko gis TER bi train express régional régional la ñu wax kan moo fi gis TER bi fu mu jëm région région kan àggul sax Mbuur ba ñuy wax waxi région ah ko gis à quel coût à quel prix terre bi lu ko defaree ñu annoncé woon ay huit cent euh, milliards nanga mu mujjee ci ay mille deux cent et quelques milliards yéen di jàmm la yéen lii jàmm la je me demande si c'est si bu dee lii jàmm la benn député simple simple député laa wax de un simple député doo DG doo gouverneur doo doo ministre doo président de la république simple député ñu sàcc sa kër huit cent million yéen eh eh eh déglu leen huit cent million loolu ñaata ñaata la presque un milliard bu manqué deux cent million loolu jàmm la te muy am Sénégal sénégalais di koy gis di koy déglu loolu ban dëkk la am ban dëkk la am huit cent millions ñu sàcc sàcc ko ci kër ba pare terewul waa ji mu ngi dox nice di doxantoog ay kat-kat ay huit-huit au moins sax mën na ñëw comprendre ba nga defaree sa dëkk ba mu rafet def fépp ay lamp def fa ay tali loolu moom j'en suis sûr euh, on y comprend parce que dañ ko defar population bi fa nekk c'est compréhensif waaye sa biir kër huit cent millions huit cent waxuñu huit millions de wala quatre vingt millions non non huit cent ba nga juddoo ba léegi ba nga dalee liggéey ba ngay am deux di namp ba ba nga amee sa at nii li nga liggéey yëpp boo ko dajalewoon woon munoo am huit cent millions munoo ko am sàcc rek sàcc kese moo la ko may te ñun dañ koy wax amul kenn ku ñuy tere wax sàcc rek moo leen ko may sàcc moo leen ko may neex sàcc moo leen ko may naqari sàcc moo leen ko may gars yi partage leen live bi tap komi kaaloo pulaar cent pour cent kaaloo pulaar to neene to baaba to kaaw to miña de tout de nag de tous les côtés waaye doxuñu ci li ngeen di dox jamais dañu dox ci yooyu de ñun ko sell ki lañu wax Sonko Jomaay yàllaa ñu leen may mu indi leen fii pour ñu defar Sénégal ñu jub jubal jubanti Sénégal loolu la woote jub jubal jubanti senegal loolu mooy dëgg te loolu noonu ñun dañ ci kontaan et fier de Sonko Diomaye yàqkat yi ceux qui sont dans les ñenn ñi ci ñoom commencé di naan ay ah wuy gisoon nañ fi Mamadou jaa gisoon nañ fi Senghor yéen da ngeen a am bopp Mamadou du Dia Senghor da ngeen koy teqale ak sonkoo Diomaye Mamadou Dia Senghor da ngeen koy tekkaleeg Sonko Diomaye Mamadou Dia sax mënoon nañ ko tekkaleeg Sonko wala Diomaye ñaari ñooñu ni ñu meloon ak ñaari ñi bokkul àndul bokkul génération tamit bokkul génération bokkuñu dal lenn amul lenn lu ñu bokk ne da ko bandum ci pot billaay bili Billy ci pot ba day ci nag tamit teg ci puub puub ko ba mu fees dell waawi ah saw ci ne ko acce demal na lépp ñun on a on en de ça ñun li ñu bëgg mooy ku jub di jubal di jubbanti te Sénégal moo ñu ko indil te Sonko moo ñu indil loolu Sonko rek le 17 majorité absolue bu amul fenn majorité rek bu amul fenn moom la ñu soxla moom la soxla majorité bu amul fenn boo xam ne xoolal xam nga majorité am na nu muy toll élection sax projet de loi bu ñu koy indee sax élection moo dul am <laughs> élection du am di <laughs> te majorité te assemblée nationale bii ngeen koy gisee assemblée nationale bii ngeen koy yëg barke Rasoulaay parce que nous avant tout c'est le Sénégal waa kay avant tout c'est te da ngeen koy gis majorité boo xam ne absolu lay doon majorité boo xam ne amul maanaam euh, pouvoir bi du ñu am sax lu ñuy lu ñuy lay xam nga Sonko moom kenn cundung bi muy nekk assemblée nationale moom kot feesoon na yi feesoon gaa yi dell loxo maanaam mu sonal leen huit sonaloon na leen de parce que waa ji dafa am xam-xam bopp la am yàllaa ko ko may ba pare nag il a l'art bu waxee ñëppay déglu ku ko buggul sax da koy da koy déglu et la preuve mooy que Sonko Macky Sall bala moo génn palais bi lui-même il a été patriote avant de sortir du palais tuuboon na de jébbalu na na na tuub na jébbalu na ci ku sell kii mu ne ko patriote laa nag jàppale ma te yàlla tax jàppale ma rek <laughs> te yàlla tax je suis patriote APR merci je suis patriote parke ra sor lay non du nit Sonko du nit Sonko du nit billaay wallaay taalaay Sonko du nit de Sonko du nit gars yi leen discours su Ousmane bu sell bi euh, dëmb te giga meeting ba nga xam ni gars yi ñëpp kontaanoon euh, ñëpp kontaanoon comme ni ma ko ni ma leen ko waxee démb ñëpp apprécié woon euh, affaire bi ñëpp continuer ñëpp ñëpp apprécié fu comprenez voilà ñëpp apprécié ñëpp apprécié gars yi tapatali live bi parce que nee naa leen waa ji yi ñu ngi koy signalé dañ ko bëgg a dàgg ñu ngi koy signalé gis ngeen li ma doon réglé noonu loolu la ma doon wax dañ ko bëgg a dàgg parce que ñoom xam nga rek ñoom bëgguñu kenn ko wax leneen lu dul euh, man du ma tudd ñooñu sax déglu leen Ousmane mu sell mi démb ci ay kàddoom yu rafet yu sell lool te am maanaa déglu leen ko ñu déglandoo ko ñun ñëpp ngeen euh, ñëwaat ci parce que après dañ ci waxtaan ñun ñëpp dañ ciy ànd ñëw euh, taxaw taxawaayu patriote taxaw taxawaayu euh, ku bëgg Sénégal taxaw taxawaayu koo xam ne dafa bëgg luy jëmale ci Sénégal ci kanam ayca ñu dégloondoo Ousmane Sonko s'il ku sell ki bismillah message bi jàll parce que Sénégal dafa nekk à un tournant Sénégal dafa nekk ci li ñuy wax selebe yoon ñu war a tànn nag yoon bu baax bi buñ ko tànnee defaru ba faw te yoon bu baax boobu moom président Bassirou Diomaye fay ak gouvernement bi nga xam ne man moom laa jiite ci yoon bu baax boobu la ñu fas yéene teg Sénégal. billaay wallaay billaahi. tàccu leen ko fi ngeen nekk s'il vous tàccu leen. vous avez entendu. compris ce message. ku sell ki nee na Sénégal dafa nekk ci sele bi yoon. selebe yoon mooy les deux voilà là ñaari yoon yoo xam ne bii dafa dem direction bii bii dem nii li ñu war nag mooy topp bu Diomaye ak Sonko c'est à droite nous allons prendre la direction droite parce que gauche moom ñooñu ñoo ko moom yàlla li yàlla xam doy na ci jéem a jubanti Sénégal nag parce que xam ngeen ni senegal fi ko fi ñu ko fekk ñoom bi ko jëlee fi ñu fekk senegal xam ngeen kër fondement bi bu ñu ko tabaxee pour un building buy dem ba dixième ba neuvième dixième onzième xam nga il foog ñu tabax ci suuf def ko souterrain dafa war a am ak garage Sénégal foofu lañ ko fekk amul benn lampe maanaam lépp lëndëm cruus foofu lañ fekk Sénégal fa lañ fekk Sénégal de. foofu la ñu fekk Sénégal fa la Sénégal toll woon amul sax fondement parce que lépp lañu yàq tout lépp lañu ñu pasar pasare jël alalu réew mi daw ak moom jënd ay kër bitim réew jënd ay villa bitim réew jënd ay immeuble bitim réew jënd ay hôtel bitim réew lépp la am bitim réew te jii ni ñoom il s'en fichent de Sénégal ñenn ñi ci ñoom bu ñu leen bàyyee te toppuñu leen bu ñu génnee Sénégal mën nañoo nekk feneen ba faw ba seeni doom ba seeni sët du ñu ñibbi seen dëkk parce qu'ils ont tout emporté lépp c'est comme si y du feu boo xam ne dafa romb ci toolu gerte toolu gerte boo xam ne dañ ko dañ ko góob ba pare ngooñ yi lépp la ravagé ils ont tout emporté avec mais gars yi ay jàmbaar lañ de sonkoo Jomaay ay jàmbaar lañ de c'est de vrai jàmbaar nag ay jàmbaar ay jàmbaar pire ay jàmbaar dëgg mooy Sonko Jomaay moo waral tey jii nii ñu nekk fii ba mën a diriger gouvernement bi di fay ay employés le personnel di def yenn yenn yenn yi nga xam ne moom la état laaj mais si c'était pas ça bu ñu cuune woon tuuti kon njaaxum am parce que ñi fi jóge loolu lañ préparé woon ñi fi jóge loolu lañ préparé woon pour que ñi ñëw dans un délai bu ndaw ci six mois rek nañu échec ba sénégalais yëpp màbb ñëw dal seen kaw loolu lañ buggoon waaye yàllaa ngi fi de yàlla rekk Karim moom moo ñëw ne leen déedéet loolu mënu fi am ñii maa leen uuf maa leen di aar maa leen di jàppale bu ñu doxal te ji ni gaa yi ñëw bi ñu lancé opération rëbb sàcc yi <laughs> sàcc daa ñeme sàcc dafa fit lan moo koy sàcc loo ñàkk am fit di sàcc amul fit bu ñu leen nee fii ñëw leen ci pet ngeen rendre li ngeen jël ñu bëri ñëw nañ de ci suuf ñëw nañ de <laughs> te loolu ñu indi noonu moo yor gaay moo leen di jàppale gaay yi ñëw nañ de barke yàlla barke yàlla <laughs> lu bëree bëree bëree bëree bëri la indi te pareegul pareegul pareegul de assemblée nationale bii la ñuy xaar ba mu sotti bu sottee ngeen di xam ni lépp dëgg la léppay leer tout clean lay def clean amul lenn lu ci tilim parce que ñi nekk Pastef yëpp képp kuy patriote ku baax la ku laabiir ku yéene moroomam moo waral gars yi di naan Pastef c'est une famille moo waral gars yi di naan Pastef c'est une famille famille la njaboot la njaboot la bu yàlla indi Sénégal wàccee ko mu jox leen njiit bu mel ni ku sell ki mu Ousmane Sonko mu sell mi kooku indi frère am muy Basir Diomaye mu ne senegal am ma dénk leen ñii ngeen teg ko ci yoon te dañ koy teg ci yoon de dañ koy teg ci yoon bu baax nañu dem rek du temps yi nii da ngeen di am lu ngeen di wax tuuti tuuti nii dootu leen am lenn lu ngeen di lam-lamee du dara laa wax dara du ngeen am tuus lu ngeen di lam-lamee parce que ku weddi gis bokk ci xanaa day fekk gis bokk ci boo gisee dootoo am looy wax lan ngay wax ana looy wax boo amee looy wax ana looy wax <laughs> gars yi Sonko mi nga xam ne dafa war a financer campagne mu gis keesu état xaalisu état baa ngi fii mu bako parce que loo moomul ba ko fa la tudd loo moomul ba ko fa la tudd mu bàyyi ko fa mu sànni ko teg ko ne soxlawu ko de mu ne patriote yi yéen ñi nekkoon ak man démb barke démb barkaat démb te ba muy gën a métti je suis toujours avec vous et nous allons rester toujours en famille du leen fàtte parce que du warkat du warkat de du warkat du warkat vous comprenez loolu moo tax ànd ak Sonko neex nekk patriote neex mu doon fierté parce que da ngay nelaw ba yendoor nga xam ni sa sa leader kenn du ko musa ne ko defal yaa defoon lii nga xam ni sa leader ku jubla ku gëm yàlla nga xam ni sa leader ci moom ngay roy et yow mii tu es obligé d'être quelqu'un de bien moo waral ngay gis laa biiru patriote moo tax muy génnee mille francs deux mille francs trois mille francs muy may nit ñoom ñoo koy def ci jamonoy makisal Sall tous les patriotes blessés ñi nekkoon hôpital ñi nekkoon ñi ñi laago woon ñépp les patriotes ñoo doon cotiser dajale di leen ciy jox di leen ci dimbali di leen faj ne leen duñ leen seetaan noonu duñ leen bàyyi noonu te jii nii législative am ay candidat ñu leen di choisir liste bi ñëpp gis nañ fa euh, ku jigéen ki tout le monde ñëpp gis nañ ko jigéen kooku nga xam ne ndeysaan woy laago la ñëpp ko gis parce que ñun ñëpp la tolloole tout le monde dans les mêmes pieds d'égalité ñëpp lañ tolloole amul kenn ku ëpp kenn c'est pour cela xeeb nit baaxul xeeb nit baaxul de c'est parce que nit ki yàlla def te yi rek nga ne kii bopp bi du liggéey te nit du du c'est pas c'est pas c'est pas le corps humain c'est la tête bopp mooy liggéey du doole du njoolaay du gataay bopp mooy liggéey le travail c'est ça lii mooy liggéey su ko defee nag l'enquiring ma fierté mooy sunu mouvement di mouvement boo xam ne ñépp ci gis seen bopp waa Linkering waa commune Linkering maa ngi leen di nuyu ñoom ñépp les émigrés góor ak jigéen mag ndaw ñi nekk foofu noonu ci boppam ñoo ngi leen di nuyu ñoon ñoom ñépp et tous les patriotes de la commune de Linkering ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar nag di nuyu la coordinatrice Mokuto Bayo parce que sunu sœur la bu jàmbaar sunu sœur bu guerrière sunu sœur bu mën liggéey bu taxaw taxawaayu góor macha allah ñun ñëpp dañ ciy jàpp rek parce que Pastef c'est une famille noonu lañ ko xamee te noonu lañ koy doxalee itam au niveau de chez te di ñaan tamit képp ku nekk Pastef ak fu ngeen mënta bokk nekk leen ci rek nekk leen ci rek voilà gars